ay daa moo jël pee waaye ñu déglu kon sunu jury bi bismillah bismillah Cheikh Talla cheikh bi nee nañu premier deuxième troisième quatrième cinquième ñoom ñooy am prix kon kan moo jël cinquième bu fekkee cinquième am na kan moo jël cinquième. oui mooy eh, exactement am ci place quatrième bi. diggante yaay jóob sëy Louga bu école Mariam Ibnati Imran am na 98 pour cent sur 100 disons et Ismaïla Ndiaye Tamba bu école Abdoulahi Ibn Masoud am na 98 Ismaïla Ndiaye yaay jóob sëy ñoom ñaar ñoo jël quatrième ex aequo kon amul parité gi nii. bu góor mokkale alxuraan jigéen mokkal ko ba ñu jogante ba ñoom ñaar ñëpp jël quatrième takbir macha allah kan moo koy jox prime kon ñu woo ki nga xam ni moo di docteur Abdallah Lam bi nga xam ne moom moo jiite association islamique yi docteur Abdallah Lam kaay joxal ñu suñ ñaari ndongo yi seeni i prix lan lañu am oustaz Sala oustaz Sala oustaz yow dafa mel ni fi ne mag yowem dañoo perturbé quatrième bi ex aequo la ñoom ñaar ñëpp ku nekk ñaata nga am. quatrième bi dafa waroon a am cinq million cinquième bi war a am trois millions. comme dañoo ex aequo ñu seddale leen ko muy huit millions ñu diviser ko par de kenn ku nekk dina am quatre millions. takbir looluy mandug lislaam macha allah. bokk nañ ko ci place ba kon bokk nañ li nga xam ne moom la ñu am séddoo nañ ko ci digg bi ba tey parité ngoog kenn ku nekk 4 millions docteur Abdallah Lam. docteur Abdallah Lam nekku fi kon ñu sàkku euh, Baye Moustapha ñëwal ki nga xam ne yaa jiite fédération Baye Moustapha Lo kaay nga joxal ñu sa ñaari euh, ndongo yi seeni neexal jox ko benn mu jox benn quatrième nga jox ko benn mu jox beneen quatrième docteur Ahmad loolu yaakaar naa leer na docteur Ahmad docteur Mahmoud Bousso ñi ngi soxla nag ki nga xam ni moom moo jël troisième docteur Mahmoud kan moo jël moo jël troisième le troisième c'est Babacar Cissé Dakar Ahmed Sarir Lo 99 Takbir macha allah ay Babacar ñu woo ki nga xam ne moo di soxna Ndey Assu Si euh, bint Al Amin macha allah mu ñëw. waa jërëjëf dinañ wax yëpp incha allah cadeau yi fi ñëw pour xale yi rek lépp danañ ko tudd jury bi dañoo am responsabilité bu diis. dañoo liggéey liggéey bu diis war a génne ay résultats maa ngi leen di ñaan yéen ñëpp bu leen kenn perte ba ñu joxe résultat yi teraanga yi fi ñëw yëpp incha allah xale yi dinañ ci jot. Euh, sang bi Serigne Pape malek si le parrain gis nga ni mu defaraat xale yi macha allah kenn ku nekk euh, la nga yor ci ab saak moo la ko ja defal la ca biir nag yaa koy xam boo demee jërëjëf sang bi. acca ñu waaw kay ñu xam naa euh, taarixu xale bi ñu jégalu ko ñëpp rek fi mu jaar ba yegg seet loolu yëpp ñu jégalu ko ñëpp ndax wax dëgg yàlla sunu temps moo jeex kon sang bi Serigne Papa si defe naa ni Seydi bokkar kon yóbbu leen ko xale bi am ndongab daara xam nga day yaru waaw mi ngi noonu taxaw Seydi Bokar mu ngoog ana doom moom moo jël li nga xam ni mooy troisième amicale des femmes de la Sénico bi ñu doon léegi ñoo dolli ay bassin ci prix yi nga xam ni euh, xale yi gañe nañu ko jërëjëf euh, sëñ Ousseynou leeral googu am na solo macha allah sunu pañe ndog yi nañu ko yëgalal ci kaw nañu ko yëgalal ci kaw bi moom xamee naa ko Sissoko xabatu sawda jërëjëf su ko defee Serigne Babacar boo jëlee sa prix ba pare nga yéeg nii nag bul dem waaye bul dem nag grand ñëwal kaay fii kon ñu leeral ni ba mu jëlee troisième ñaata la am ci xaalis lan la ko grand prix jox. grand prix jox na ko dix millions pilis am na la ko sëñ Moustapha Ndiaye yaakaar na tegal muy un million. jërëjëf muy lu ama am solo kon macha allah moom moo nekk noonu defe naa ni kon ñaari xale yaa ngi noonu kon ñu. sëñ Talla. li ma la waxoon léegi laa lay waxaat dafa mel ni maag yow ñun ñaar ñëpp dañoo jaxasoo ñaari quatrième yi ku nekk 4 millions nga am troisième bi defe naa ni set million la am ñu tegal ko ci benn muy 8 million yow nag 10 million nga ko yéene na na muñ ba déwén incha allah kon 7 million la moo ngi nii ana sëñ Babacar teel sa 7 million macha allah bu la jëlee ma dencal la ko Cheikhana <laughs> Cheikhana deuxième.

monsieur le parrain taxawal noonu Serigne Papa Malick si ak xakay yow lañ koy teree yaa koy jox prime lan la gagné moom ki jël deuxième. am na 10 millions sëñ Moustapha Ndiaye tegal na ko ci yaakaar na 3 millions. kon am na 13 millions 10 yu ko Grand Prix jox ak 3 yu ko Serigne Moustapha Ndiaye jox ak loo boo xam ni jóge na ci si Sissoko xabatu sawda ta mooy ay mbir yoo xam ni yooyu yëpp macha allah da koy jëfandikoo sa yaram te yonent bi moo ne nañ ko fajoo amicale des femmes moom itam teg na ca la mu tegal ñële Serigne Pape Malick si moom it teg na ca li mu tegal ñi jël quatrième jëf kon euh, euh, ñu ngi may wax ni madame Tall madame Mbow Mami Mbow madame Tall Kaolack moo joxe juróomi pañe jus locaux jus mooy lu ñu naan kon jus locaux juróomi xale yi gañe kenn ku nekk di nga ci am benn boole ci li nga xam ni si soo xabatu sawda joxe na ko Ousseynou may ma ñëw kan moo jël deuxième wax nañ ko am na li mu am kan moo des bismillah <laughs> ay kan moo des euh, cheikh bi bala nga ko wax may wax ñëpp ni bu ñu waxee premier bi bu kenn jog bu kenn jóg moom dina dinañu jàngal li tax mu jël premier loolu mooy benn waaye xaa Serigne dina dinañu tëjal jataay bi ñu kontaan dem ñibbi loolu tam maa ngi leen koo ñaan yéen ñëpp bu kenn jóg incha allah. hopp law nee na kii war a jël premier ca léegi ñu wax ko dafa mel ni sama tur la yor de kooku nee na Serigne Abdou Samad dollil na ko ci biir Makka ci li mu war a gagné incha allah allahu akbar kan moo jël premier. d'accord première bi dafa am 99 virgule 67 moo dëkk Louga. nu mu tudd. Euh, ci madrasa asxaabul kahf. mooy soxna Khady Darame salaamaaleykum. takbir takbir takbir Serigne Talla ki gañe bi góor wala jigéen. jigéen la. Serigne Talla ki gañe prix bi góor karim takbir. allahu akbar allahu akbar monsieur le ministre monsieur le ministre kaay ñu jox la honneur bi nga xam ni mooy nga jox nga jox premier prix bi ki nga xam ne moo ko gagné tey jigéen a ko gagné macha allah waxoon naa leen alxuraan am nay feem xale bi lu mu ñëwoon sànq ci salle bi xamoon nañ ni booy jël pay yàlla na ko yàlla teral may leen caméraman yi jàkkaarloog moom may leen photographie ñu def seen liggéey fa tabarakallahu jërëjëf kon euh, Serigne Isaka ñi ngi ñaan bi fadlika Serigne Isaka nga ñëw wetli monsieur ministre prix bu diis bi monsieur le ministre Serigne Isaka daf lay dimbali daf lay dimbali jàppale le prix bi ndax dafa diis pris champion alquranul karim bismillah Serigne Isaka kaay nga joxel ñu ko nga ànd ak sax kay nag wax dëgg yàlla ndax prix boo xam ni jigéen moo ko gagné alxuraan la ñuy wax Sénégal gii la xëy mbokk yi na ko international seede kon mi ngi noonu waa Louga am jërë ngeen jëf sëñ Talla premier bi lan la am mbokk yi bu kenn jóg mbokk yi bu kenn jóg xale bi day jàng bu kenn jóg xale bi day jàng Serigne Talla ki di soxna su tedd di siy jugalu ga ñaata la na am 15 millions sëñ Moustapha tegal na ko ci 4 muy 19 million 19 millions. takbir. kon doom jël sa prix te nga ñëw nag toog jàngal ci dal su ko defee ñu ñaan Serigne Hadi bu jarbaatam bi jàngee ba pare mu ñëw nag tëjal ñu rang incha allah euh, su ko defee ñu soog a yëkkati jataay bi. ñu ngi leen sant leen gërëm ci dal gi ngeen am ci gunge gi ngeen di gunge ba ñu eggal suñu liggéey nañ ko tàmbalee woon ndeysaan champion. bu Sénégal ci jàng alxuraanul karim allahu akbar jërëjëf macha allah kon ñu bàyyi ko mu dem toog fi nga xam ni foofu lay jànge euh, Sidi Abdallah Dia Cheikh Abdallah Dia soxla nañ la ci kaw podium bi soxla nañ la ci kaw podium bi sëñ Talla sëñ Talla jox ko li nga xam ne mooy prix mu téye jox ko 15 millions mu téye jox ko 15 millions mu téye ok. Cheikh Abdallah Dia ñu may Cheikh Abdallah Dia mu ñëw dañuy am photo de famille ak xale yi Cheikh Abdallah Dia ñu may ko mu ñëw mbokk yi bu kenn jóg xale bi day jàng bégal ñu bu kenn jóg ñu may Cheikh Abdallah Dia mu ñëw Serigne Moustapha Lo fédération bi na ñëw Serigne Moustapha Abdallah Dia Cheikh Abdallah Dia macha allah kon photo de famille nañ ko organiser nañ ko organiser buñ paree ñëpp toog xale bi jàng incha allah ñu docteur bismillah docteur Khadim Silla docteur Khadim bismillah Serigne Papa Malick Sy tegal na xale bi nga xam ni moom moo jël premier enveloppe jox nañ ko commission finance kon macha allah nañu organiser photo bi ndax benn yoon lay doon par at nañu ko organise macha allah ñu teewlu buñ paree rek ñu bàyyi xale bi mu dem jàng bégal ñu nag macha allah. jamono bi ñuy foto nag mbokk yi ma fàttaliwaat leen ñi nga xam ni ñooy jël loxo dugal ko ci poos jël lu ñu moomul jël nañ congé ba fii juróom minute ci des nañ jël congé rek bañ génn incha allah waaw bu kenn jël portable kenn bu kenn jël xaalisu kenn bu fi kenn rus macha allah ñu ngi koy ñaan ñëpp jërë ngeen jëf pour la photo de famille kon ñu ñaan. waaw dëgg la. Seydi kaay kaay nii ana xale bi nga xam ne moo gañe alxuraan kaay kaay sëñ Boubacar Faye photographie ku leen topp yaakaar naa ne fii la ñuy yendu defal nii ñu suivre tuuti photographie suivre leen ma expliquer leen cadeau bii mbokk yi mbokk yi cadeau bii ma yëkkati xale yi nga xam ne ñoo doon concours ñoo ni seen papa Abdoulaye Dia mënuñu koo fay ndax ñoo tax àdduna bi xam leen kon nag ñoo yëkkati kado bi terale ko ko macha allah xale bi jël premier moo koy jox bismillah téel yaa joxal sa baay Abdallah ngeen suuf sigi leen ngeen xool photographie macha allah jërë ngeen jëf macha allah kon su ko defee ñu ngi ñaanal ñëpp rek ñu dellu seen jataay ñu may suñu ndoom si nag moo jàng alxuraanul karim Cheikh Abdallah jërëjëf ñu ngi lay ndokkeel bu baax kon xale bi dellu ci taabulam